mafatih albishri walamni waljanna fi salaati wa taslimi ala muqimi sunna allah azimu leylal wiladati xisbatan iza lam yakun nahwal harami hudu إذا لم يكن نويل منيحا لباب الأي والأي والهدى محت أمين الوحي وهو الرسول فكيف يتيب العمر إن دمت هنا وهن الذي لولا دعت سبيله وحن الذي فلا يعطي لنا المنى فلولا حقا لا يكون فطيله وحن الذي در يتيم وجوار جسيم وإبرد ذوب شقيل سباتي عن بدري بدا الكفر قد نفى كما انت فيتيين وحام يجول وواو وليس لي عمل الحاكيا أملي سوى المحبة وتعزيم وسلام على نبي وعليه أجمعين ربنا دائما borom guddi gi moo ni yónneen walaysa lii amalun alxaaka yaa amali siwal mahabati وتعزيم وسلام نبي وعليم أجمعين سلام ربنا دائما ما من سير أبد نينا أسبي الله علي رضاء بترياس مولني ووالدي وأشياخ ما أزوني نبي والي أجمعين ما ربنا دائما أن صفيا وبعت يا ربنا بي الفضول فكون مجيدا ربنا بالجود والكرم على نبي وعلي ينن أجمعين aman rabbina góor gi teggi na yonan yaa rabbi salli alal mahamudi sayyidina waqba zafa atawafina walam nudami ajmaina salama rabbina saba yoneen yaa ngi noonu suma bunu awfi wa sadul saba yaa ngi loxo yi ci kaw saba loxo yi ci kaw saba abubakaro saba abubakaro saba ana aliyin saba ana umaro saba ya ana umaro suppe sëñ Babakar Si soppe sëñ Babacar Si ku noppi jaral loxo yi ku noppi jaral loxo yi ku noppi jaral loxo ci waawan ku noppi jaral loxo yi ana soppe yi Mamadu ku noppi jaral ku noppi jaral taalibe cheikh yi def leen nii taalibe cheikh acca kuy taalibe cheikh ku sopp yonent bi loxo ca kaw ku nabi jaral loxo yi ku nabi jaral loxo yi ya rasulallah ya habiballah ya jara magalo ya rasulallah bala ya jara magal xool gis mu daaj yaa ko waral ya rasulallah yaa bi bala xool gi mu daan yaa ko waral xabibala yaa xabibala mimi yaa la mi yaa noonu yaa yaa ko waral yaa xabibala mimi yaa la mi la mi yaa yaa ko waral gàmmu géeg bu ni la yaa waral yaa rasulallah yaa jara magal yaa jara tantale yaa jara magal ñëpp way na mbay ci meloom dellu sant Sëriñ Babacar ci jikkoom kenn desul rëkk naan yaay mbërum Tiwaawan faj aajo gaaw na fa mbay tiitu laqu gaaw na fa mbay laaj ko gaaya daan dikke fii ci biir ti waawan salli rabbi sallu ala nabi aman salli rabbi sallu ala nañu muñ mbay mi feeru tey duunu faate salli rabbi sallu ala nabi aman salli rabbi sallu ala nabi aman ah صل ربي صلوا على النبي آمن صلوا على xalifaay géej gi dambe penku ba soow ku ko xuus lab wala nga wañe jéggiwul jàmbatul du xaste du gaaral lu ko waay wax mu bàyyi la kii ko wóolu mbay jiggiwul jàmbatul du xaste du gaaral lu ko waay wax topp yàlla ak yónneen la jàngal njabootam ku ko teg baat du geesu yàlla la wóolu إذا نحن جئنا نحو من تعلم وجرناه سهلا لينا لم يسادده ومن لي بوسط تعاذ يربي مريده بلا قلوة بل همتي مثل أحمد ومن لي بآداب ودرب مؤدد ومن لي بورس bal julayde wa lasxare wa man lii ku mën lii neexul ba neexul waaye baayu da baax Malick moo mën lii wa man lii bi najmin fi nujumi wa mursidi nan ko Maodo yaa ma sol usolan yow Maodo yaa ma sol xarodan yow Maodo yaa ma sol سيرة البدر مقودي ومن لي فجاد فيها بسياسة والندى وعلم وحلم فاتدى كل معتدي وتبارك الله نيغي وبسر تي في ñaan yàlla na yàlla yokk liggéey bi yàlla na yàlla barkeel ko ci barke Seydina Muhammad monde bi yëpp gis nañ seen liggéey teyit rafet na yàlla na ngeen am lu kawe seen njort ci barke yeneen ci yàlla Muhammad ak mbooloom seen i notaal yi liggéey foofu wasalaamaaleykum wa rahmatullah seen mbokk seen xarit Abdoul Aziz Ndiaye a Tijaani taalibe Seydil Hadji Malick wasalaamaaleykum wa rahmatullah ala nabi wa alayhim ajmaina salaama rabbina daiman mafatihal bishri wal amni wal janna fi salaati wa tasliimi ala muqiimi sunna